jërë def jëf ñu ngi ak euh, Abdou Fatah Ndiaye ñu ràññee ko lool Abdou Fatah Ndiaye bu Bara kenn dootu ko présenté Abdou Fatah ñu bàyyi la nga nuyoo euh, ak VAO 24 actu ak produit yu bees yi nga xam ne ànd nañu ak. mbokk yi asalaamaaleykum wa ku ci nekk ñoo ngi lay nuyu sa tur ak sa sant di nuyu waa bitim réew di nuyu waa réew mi di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di la ziar bu baax El Hadj Ousseynou. Mm-hmm. jërëjëf wax naa ko sànq xàmmee euh, ci liggéey bu am xam ne da koy def. Mm-hmm. ci wàllum fajum cosaan doon ne ko ci euh, sa waajur di euh, Abdou Fatah Baara Mbazin xam ne kenn dootu ko laajte tey euh, lan nga ñuy indil ci 24 ak waaw tey li ñu leen andil mooy comme société taaru yaram ni mu daan def rek ñu xamee ko ak Abdou Fatah Ndiaye dañ leen a ay produits yoo xam ne ay produits yu efficace la maanaam li ñu ci njëkk a présenté nag mooy produits yi nga xamante ni tey dafa jëm ci wàllam ndoxum siti hmm. waaw ndoxu siti bu ñu koy wax mooy tawat la joo xam ne jamono juñ toll ni dafa lëmbe askan bi dafa bari lool koo gis mu naan la siti siti siti te siti doonul lu ñuy faj dañuy faj mooy tooke bi nga xam ne dafa ñëw ah, nekk ci non kenn du ko faj dañuy faj mooy tooke bi ñëw dox ci deretu doomu aadama bi hmm. tooke boobu la ñuy dindi euh, filtré ko ci deretu doomu aadama bi nit ki mën a nekk à l'aise mais fii ak ma ngi ci yow rek maanaam te dañul rek mën nga andi am ay jafe-jafe la nga xam ne moo koy dindi nag du benn garab maanaam li koy dindi mooy njafaan comme tey boo demee ci àll bi ni nga gisee garab bi verte garab bi jaune garab bi weex garab bi ñuul garab bi marron garab yooyu ngay jël boo dikkee am na ci euh, garab bu ci nekk rek ak turam moom ngay jël euh, nga nga nga nga filtré ko di joxe ko maanaam ki man cee gis ay résultats. Mhm. waaw gar. Mhm. maanaam ban ban ci garab. waaw garab bi nga gis ni maanaam mooy garabu bi nga xam ne mooy faj tooge siti bi. Mhm. bii fukki garab lañ boole. te garab bu ci nekk rek dafa ñëw pour xettali doomu aadama pour tooke bi nekk ci yaramam garab bi ñu naan farxañ xarañ cox dimbali doogoor gen gi dëgg sulukum ngaam waswasoor bànganoos yi garab yooyu mooy faj tooke siti garab boobu boo ko xamul doo doo faj siti mm-hmm. maanaam te lii moom dafa nekk loo xam ne suñu jur moo ñu ko jàngal bañ xam ko daal muy gëlu jëm ci tooke siti waaw ñun nag suñu traitement li ci gën a bari mooy ci tooke siti vingt cinq jours ci lañ koy traité mm-hmm. te lii ngay gis nii sunguf la mais sungufu xob la da gis nag ñu bëree bari dañ naan la duñ naan sunguf mais sunguf ba ñu naan ak ba ñu naan loolu la ñu war ràññale mm-hmm. mm-hmm. waaw bii sungufu xob la mu ngi mel ni tey yow mu defaroon sa añ ba pare rek jël euh, sa euh, sa ñambi wala nga jël sa supame teg ci kaw ndab li di jëfandikoo du la amul benn effet secondaire mm-hmm. sunguf bi noonu la mel kii tey boo jëloon tey ndox nga jël ko makk ko naan ndox amul benn effet boo xam daf ko def ci yow waaye nag sasi boo ko jëlee da koy xooj ci un naan ko ci deux jours boo ko jëloon tey di ko naan ci kàttanu yàlla nga amee tooke si nekk sa yaram yaram di tàng wala sa yaram di diis wala yaram bi tayal wala mu lay def bët yu lëndam wala tànk yi faral di diis da koy tuur ndox bam set moom nekkul garab boo xam ne da koy naan di ko allir sami génn seeram wala mu lay indil benn effet secondaire waaw li ngay tuur ndox tey day jaune day tàng diwlin loolu mooy li nga xam ne mooy nekk ci deret doomu aadama bi loolu ko hémorroïde waaw ku ne siti ne hémorroïde ndax siti moom mooy euh, mooy nday feebar yi waaye nag hémorroïde day taaw bi parce que li waral loolu mooy hémorroïde tey bu fekkee ne siti bari na ci yow tooke boobu dafay créer benn genre picc sa biir picc boobu moom la ñuy wax picc ab kajoor saa bu xëyee rek ma ngi jël ci sa dret boole ko ak li nga xam ne mooy tooke siti bi di ko envoyé ci picc boobu nekk ci biir picc bi mën naa ànd ak yow 10 ans du la tëral waaye benn jour ngay xëy xëy rek sa dox di gaaw a sonn boo tëddee guddi doo a fexe ba nelaw maanaam yooyu la lay faral di def waaye daal la xamante ni moo ci wér te wóor mooy képp ku lay fajal jàngoro Kajoor mooy hémorroïde faaw mu fajalaale la siti ndax siti moo ko jur bu fekkee ne dangay nit dafa ñëw jàmbat la li nga xam ne mooy hémorroïde daf euh, nga koy fajal hémorroïde fajaloo ko li nga xam ne moom moo di tooke siti bi du man a wér mm-hmm. waaye boo ñëwee ci ñun rek insha allahu rabbi bu ñu la consulté rek danañ xam sa tawat fu mu toll te bu ñu la joxee garab rek nga am tawféex ci kàttanu mm-hmm. yàlla mu nekk lu baax na lool mm-hmm. boo xam ne day ubbi waaw waaw waaw waaw savon d'essence bi waaw maanaam savon la boo xamante ni moom tamit lépp rek ci ay garabi olof lañ ko liggéeye mm. ndax euh, xam-xam bi suñu wajur moo ñu ko fi bàyyil muy lu jëm ci sunguf euh, xob reen dañ koo xam dañ koo maîtrise waaye savon bi maanaam dañoo toog xalaat ne maanaam tey euh, ki nga xamante ni tey su yàlla dafa def dafa am ay jafe-jafe maanaam euh, ay yaramam di diis yaramam di tayal lu jëm ci cat wala rab wala saytaane di ko sonal moo tax ñu liggéey savon bi savon bi savon la boo xamante ni maanaam savon bu am solo la waaye nag euh, ñun suñu produit da ngay gis ne maanaam dañ koy liggéey ci anam bu gën a set bu sell nga xam ne tey amul benn effet secondaire boo xam ne tey dina ko dina ko jege daal waaw produit ñoo ko liggéey waaw savon bi ngay gis ni tey képp ku ko sangoo bala moo jeex di ñu ko laajaat hmm. parce que day defar sa yaram yaram bi day set yaram bi day liis day naay day dundaat hmm. ba pare li nga xam ne moo ci gën a am solo mooy tey boo koy sangoo nit ñi dañ lay bëgg dañ lay sopp ki nga xamante ni dafa bëgg borom kër bu koy sangoo ci kàttanu yàlla àpp bi ñu koy joxal bala ma mat insha allahu rabbi dana am borom kër maa la wax loolu góor gi nga xamante bëgg soxna soxna tëggoo bu koy sangoo di am soxna ci kàttanu yàlla ki nga xam ne dafay liggéey ci barab maanaam euh, bayram demewu fa noonu bu koy sangoo ci kattanu yàlla balaa mat une semaine da gis bayram bi fu ku mu xamutoon dina ko xam insha allahu rabbi ca yëngu ah, waaw moo nekk noonu muy savon de sens bi daal macha allah mm. mu nekk lu am solo euh, waaw estomac mooy comme li la wax rek ku ne siti ne hémorroïde da nga ne estomac 90 pour cent estomac ñu ngi koy jëlee ci ballonnement ballonnement ñu ngi koy jëlee ci hémorroïde hémorroïde ñu hémorroïde mooy taaw bi estomac moo ci topp mm. estomac moo ci topp mm. estomac boobu nag tey li nga xam ne moo koy def doomu aadama ñam bi nga xam ne day toog sa biir vingt 24 heures sur 24 mm. maanaam muy nekk sa biir ki nga xamante ni tey suñu borom dafa def ne euh, dafay sentir estomac tey bu añee euh, bu bu ngoonee mu reer bu ginnaaw suba mu ndékki euh, te yooyu dañut bu dajaloo ci biir bi maanaam mooy def estomac ndax doomu aadama ni ko suñu borom sàkkee sa 24 heures lu nekk ci biir bi dafa war a dañ leneen lu bees duggaat ci biir bi ñam yooyu nag bu fekkee day toog ci biir bi dafa fekkante bu yàggee day def retour de flamme retour de flamme boobu muy def nag moo tax dafa am ay ferñeent yoo xam da koy jëlee ci ñamu yàqu toog ci biir du ko envoyé ci xol bi xol bi dafay taq taq boobu muy def ferñeent yooyu mu fiy bàyyi mooy xoos bu yàggee boo laalee soble da lay sonal boo naanee café da lay sonal boo laalee lu weex mu sonal la waaye képp koo xam ne amee nga estomac ak estomac bi lu mu danger danger ci kàttanu yàlla boo dikkee ci man ma faj ko incha allahu rabbi. incha allahu rabbi ci ñaata fan wala euh, xam nga sa sa bu ñu la xam sa tawat fan la toll. Mm-hmm. mais estomac bi lu mu dëgër dëgër duñ ko passé ak moom 20 jours ci kàttanu yàlla. lu mu dëgër dëgër. wallaay nga mën ah, euh, ay frotté yu baax. waaw am nañ ay frotté comme maanaam tey euh, frotté bi nga xam ne à base de gerte lañ ko liggéeyee. gerte maa la wax loolu. ndax maa la wax loolu. Mhm. gis nga frotté bi ñu liggéey nii. maanaam euh, composant yi ñu ko booleel bu njëkk moom la suñu maam ñi daan frotté woo di dox yi un kilomètre deux kilomètres ñibbi si duñ la jàmbat digg luy métti duñ la jàmbat yaram buy métti. Mhm. nañ delluwaat ci ginnaaw rek li fi ba maam yi bàyyi woon. Mhm. parce que moderni moderniser dafay am moo tax ñu toog moderniser nga xamante ni képp ku ko jël rek incha allahu rabi da nga ci gis ak tawféex tànk yu métti ndigg lu Euh, yaram buy diis saa boo ci frotté woo boo xëyee suba insha allahu rabbi di nga ma waa téléphone ci kattanu mhm. suñu borom. police mooy lan. waaw police benn diw boo xam ne ñun ñoo ko créé mu nekk produit boo xam ne produit bu produit naturel la. Mhm. police yaakaar naa ne wër na àdduna euh, muy pommade bii po po la boo xamante ni tey képp koo xam ne suñu borom dafa def ne da nga da nga amee ay taas ci sa yaram wala nga am ay picc. wala ki nga xam ne dafa am ay heure wala ki nga xam ne da daan xeesal ba bàyyi xeesal yaramam di yàqu di def ay koor wala muy am ay cere wala mu am ay lonet kooku lañ gën a yittewoo kii nee naa la boo ko jëlee balaa pommade bay jeex insha allahu rabbi di nga ma waa téléphone te lépp rek ci plante lañ ko liggéeyee muy sunguf xob reen génn ko muy pommade bii waaye nag dañ lañ ci liggéeyal boo xam ne bu mag la mooy bii parce que bii nga gis nii moo ko gel bi maanaam gaam la waaw fii ba bitim réew mm-hmm. dañu koy commande ñu leen koy envoyé mm-hmm. parce que moom dafa doon diw ba pare di traité wala bépp xeetu ndoxu siti bu nekk seeram mm-hmm. képp koo xam ne jëflante leen ceeg yow rek insha allahu rabbi di ñëwaat téléphone man de leen moom a waaw xam nga waaw xam nga karité dafa nekk loo xamante ni maanaam matière bu am doole la matière bu baax la ci doomu aadama muy karité waaw ndax euh, karité booy xool euh, lu mënul def ci doomu aadama amul savon bi ngay gis ni tey karité lañ ko liggéeyee waaw ak yeneen garabi olof yoo xamante ni tey képp ku ko sangoo da nga gis saw yaram day liis yaram bi day naay yaram bi day dundaat mm-hmm. waaye nag garab la boo xamante ni tamit maanaam li nekk ci biir mm-hmm. ba tey moo nekk fii rek mooy sa sama essence boo laaloon tey benn yoon day xëbb dalay tiim te saabu laalee ndox day gën a waw loolu moo jaaxal ñëpp mm-hmm. te savon bi li nga xam ne moom lañ ko liggéey mooy dafay nekk loo savon boo xam ne dafay xëcc sa wërsëg ba pare ànd ak kaaraange mm-hmm. ndax euh, garab yi ñu ko liggéey garab bu ci nekk dafa ñëw pour xettali doomu aadama mm-hmm. dañ ko liggéey garab naan béréwér ngel was-wasoor ninki nànk xaax cooy foofu ngolloñ kii boo ko sangoo insha allahu rabbi loolu tëju tëju da nga ubbeeku ci kàttanu yàlla te foo taxaw danoon xam ne egsi nga insha allahu rabbi mooy bii waaw mooy savon de mooy mooy savon de à base de karité bi waaw moo nekk noonu tamit di puudar yomb lool maanaam duñ mën a léeg dañuy xaw a néew doole. waaw moo tax ma andil leen euh, kéemtaan. Mhm. kéemtaan benn produit la boo xamante ni tey ñoo ko liggéeyee ci plante. Mhm. muy euh, ñu ngi ko liggéeyee ci li nga xamante ni tey moom moo di euh, dugubu suuna. Mhm. ak sungufu ñam yi. ak yeneen garab moom lañ composé. waaye kii képp ku ko jël. guddi gi nga ko jëlee ci kattanal suñu borom. saa boo xëyee suba teel. balaa balaa ngaa xool balaa balaa ngaa ndékki. da nga jël sa téléphone woo ma incha allah te kii nekkul loo xam ne tey da koy jël ba pare maanaam di ko bàyyi muy muy del déedéet ma ngi mel ne tey fas buy jël dugub rek ak fas bu dul jël dugub mm. noonu lañ noonu lañ noonu mel mm. maanaam tey boo fas bi jël dugub ak fas bi du jël dugub mm. saa boo leen àndalee ñoom ñaar rek da nga xam ne fas bi jël dugub du moroom bi jël dugub mooy neexal kër gi te boo koy jël doo sonn doo gaaw a màggat ba pare fi mu toll li nga soxla ci kër gi lépp da la koy jox. Hmm. waaw képp koo xam ne am nga jafe-jafe pour lu jëm ci kër gi. Hmm. bu ñu ko xoolee ba xam ne maanaam tey tawat la rek bu nekk ci yow. Hmm. amul raxut dara. bu soobee yàlla bu ñu la joxee bii incha allahu rabbi balaa mat une di ma waa téléphone. muy mag di ndaw ki ma gën a soxla mooy ki nga xam dafa jëm cinquante ans jëm soixante dix ans waa kër gi nar koo yam kooku buñ ko naree yow man nga koo lijjanti ko dama koy lijjanti ci irsan bi jóoni jóoni sax la ci bii nii bii jour bi nga ko jëlee ci guddi gi boo xëyee suba di nga waa téléphone insha allahu rabbi jërëjëf moo nekk euh, mu nekk lu am solo Abdou Fatah Ndiaye mu Bara Mbazin yaakaar naa Bara Mbazin moom kenn dootu ko présenté euh, bokk na ci ñi njëkk a def euh, fajum cosaan file ci diwaan bi mm-hmm. Abdou Fatah gannaaw lu jëm ci loolu xam naa ne mm-hmm. am na ñetti njaq yoo xam ne am nga ko ñetti njaq yi daa mel ni nag jamono ji moom mooy toj dëkk bi ñetti njàq yi. waaw waaw waaw ñetti njàq yi nag bala mu cee ñëw. Mhm. danay ñëw ci dara ki nga xam ne dafa amee asma. asma waaw. ki nga xam ne maanaam day faral di fàtt. Mhm. buy day gaaw a sonn. Mhm. bu tëddee ci lal bu poussière am problème bu duggee ci saxat am problème. maanaam xob bi lañ leen andil. xob bi fu sori lañ ko jëlee. bii de maa la wax loolu. te lu lu lu am doole lañ ko jëndee doog cee jot. muy xob bi nekkul ne même porte kii xob la rek déedéet. kii nee naa la képp ko amee asma. ci kattanal suñu borom. ak asma bi lu mu të të të boo dikkee incha rab rabi ma réglé ko ci kattanu yàlla muy am xam yi asma rek moom moo ko tax a jóg fatta gaaw a sonn yooyu comme et cetera ma nga noonu la demee nag mm. boo ñëwee rek incha allahu rabi ma dindi ko mm. ki nga xamante ni tamit dafa amee rhumatisme mm. muy suñu mag ñi suñu maam ñi ak euh, suñu suñu suñu góor yàlla yi maanaam ñi nga xam dañu jàmbat tànk yu métti mm-hmm. yaram buy métti ndigg luy métti mm-hmm. maanaam bu ndikkee ren bi laa koy jox mm-hmm. ren bu am solo nga ni ci doomu aadama kii boo koy jël day filtre sa deret day raxas deret ba mu set day dëgëral yax maanaam te doo am benn jafe-jafe maanaam di jàmbat ay tànk yu métti wala ndigg yu métti yaram buy diis waaw ren bii moom képp ku ko jël ñu wax la ko nu nga ko jëlee balaa ren dee jeex incha allahu rabbi képp ku la jàmbat tànk yu métti da nga ne koo xaaram wala sama waay moo nekk noonu voilà xam naa ñu daaneele ko ñaari ponk yi. ak ñetti ñax yi ñetti ñax yi daal moom comme mooy waaw xam nga li liñ fi teg nii la booy xool. Hmm. maanaam lu ci ëpp. maanaam du xam-xam boo xamante ni tey nit a ma ko jàngal. maanaam sama papa bàyyi la ma fi sunguf xob reen. sa papa ni nga raayoon nga ne xam-xam bi nit jàngaluloo waaw xam nga sama papa. Hmm. dafa am lu mu def muy côté am. Hmm. mu passé léegi nag mu def à suivre bàyyi ma ma ñëw. bi ma ñëwaatee nag man tamit dafa la àndoon ak moom. ah ñoom ñoo àndaat ak man waaw maanaam fexe ba ñu moderniser liggéey bi. teg ko ci yoon waaw xam nga maanaam du ma faral si tax di ko wax. di ko kii yooyu. Mm. waaye daal képp ku ma seet si. Mm. ci kattanu yàlla danga xam ne. Mm. maanaam lii bagage yu jinne la. képp ku ñëw kër ga dinaa la wan loo xamante ni incha allahu rabbi da nga xam ne ñun li ñu yor ñun ay xale lañ mais nag ay bagages yu mag lañ yor. Mm-hmm. waaw ay bagages yu maam lañ yor daal. Mm-hmm. waaw waaw waaw waaye daal ñetti njax yi moom li ma la ci mën a xamal mooy. maanaam képp koo xam ne da ngay lijjanti euh, liggéey mu të wala nga nekk koo xam ne place ba nga nekk. mënoo hmm. faxe faxe faxe ba gis fa sa bopp. Hmm. wala nga nekk koo xamante ne ngay dund ay xat-xat yu métti. Hmm. maanaam euh, kër ga nga nekk mënoo fa am jàmm. wala nga nekk koo xam ne da ngaa fay ndax day am. nit daan daan ñu daan ko tudd. nga yor sa téléphone téléphone bi chaque chaque jour chaque instant day day nit ñi di la bàyyi xel di la woo di la kii nga jékki-jékki téléphone bi mel ni lu fay. kooku boo dikkee ma tàll ci kattanal suñu borom. nga kooku bu dikkee ñetti njaq yi ci laa lay dugal. maanaam nga gis ci ak avancement goo xamante ni. ba ngay juddoo ba ni ngay tolle mosoo koo gis ci kàttanu suñu borom. da koy aj. dama koy aj ci kaw. Hmm. ci kàttanu yàlla. voilà euh, mu mel ni kon ba léegi rek euh, am jafe-jafe pour euh, karaw muy ruus waaw karaw tamit mooy comme produit bi rek. Hmm. maanaam lépp rek plante lañ ko liggéeyee. Hmm. waaw produit bi mooy bu karaw bi. maanaam kii moom ñu koy jël xam nañ ko fii ba bitim réew. maanaam lu ma ci liggéey ci kàttanu yàlla dañ koy yónnee dañ koy jël mm-hmm. ndax la ma njëkk a dindi ci yow mooy crasse dara mm-hmm. bi xasan karaw gi faral di dagg di chuté mm-hmm. wala nga peñe muy ruus wala ñi nga xam ne ndoxu chuté bi day téye seen karaw rebóor yi aju jëm kaw ñi amee leel mel ni tefes rek muy aju jëm kaw kooku bu ma la ko joxee vingt cinq jours nga diwoo quatre jours bàyyi deux jours diwaat quatre jours bàyyi deux jours ci kattanal suñu borom balaa vingt bu fekkoon da ngaa létt boo firee ko di parce que moom garab yi ñu ko liggéey limon bactrine mentolato menthe mbër boof aspirine nivaquine yooyu lañ ko liggéey ak yeneen ak yeneen ak yeneen hmm. moom lañ composé fii hmm. kon produit bi képp koo xam ne yaa ngi jàmbat karaw ak fu mu mën di doon hmm. faxel ba def ak man contact ci kattanal suñu borom ma jox la ci produit bi sa karaw jóg kii moom amul sax lu ñu ciy nekk di incité vingt cinq jours laa lay karaw ci kattanu yàlla muy xale di mag xale bi am un kanja waaw mooy bii mm. savon bi mooy moo fi mu toll nii moom moo moo toj jamono kanja lañ ko liggéey karité mm. kii boo koy sangoo mm. dangay gis sa yaram ni muy faral di taxe di liis yaram bi day naan yi day dundaat ndax kanja dafa am solo ci doomu aadama te moom lañ fexe ba liggéey ko ak karité ndax nee naa la li yi nga boole waaw xam nga li ñu maanaam nekk na loo xamante ni tey maanaam ñun ci plante la ñuy liggéey ndax euh, gis nga euh, lu jëm ci sunguf xob ren maanaam lu nekk rek doomu aadama mën na ko ciy liggéey dañoo toll jamono joo xam ne nag lépp rek waruñu koo bàyyi tubaab bi dañoo war a xool ni nga xamante ni tey ñun moom lañ mën a moderniser euh, suñu yëf ndax lu jëm ci sungu fa xob ak ren lu ci ëpp maanaam euh, mooy suñu mbir mm-hmm. kon nag euh, dañoo war a gën a góorlu gën a am courage ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey Abdou Fatah Ndiaye daal ma ngi Touba Xayra de euh, société taaru yaram ma nga fa mm. képp koo xam ne suñu borom def na ne am nga jafe-jafe lu jëm ci wàllam diw ak li nga xamante ni moom moo la sonal ci sa yaram mm. xaw nga jëm ba sonn mm. kooku laa gën a yittewoo ki ne dem naa ba dajal boo dikkee rek am na béréb boo xam ne bu ma la fa soobee rek lépp day daal di saafara wu ci kàttanu yàlla euh, wàllum seet yëngu bu waaw seet moom jamono ñu toll nii maanaam nag euh, du ñu naa ci dara waaye suñu borom may nañu ci suñu borom may nañu ci ndax nee naa la ay xale lañ waaye nag bagage si mag lañ téye te képp ku ma seet si ci kattanal suñu borom pour affaire u seet incha allahu rabbi dinaa la wax loo xamante nii di nga dar sa gémmiñ moo nekk noonu kon seet moom dafa nekk loo xam ne lu lu lu ñu lu ñu maîtriser te it loo xamante ni la lu ñu teel la ndax ñun la ñuy influencer du ñun dafa am lu nekk suñu ginnaaw boo toogee mën nañu kii lii mooy joxe soxlaan kii lii mooy soxlaan kii lii mooy soxlaan hmm. comme ni ñu faxe fa fabriquer savon karité bii hmm. ak kànjet ba muy xëpp boo dikkee say mbir noonu lañ koy lijjantee lijjanti say mbir moo gën a yomb hmm. moo gën a yomb defar sa savon bi karité ak kànja ba muy xëpp maanaam liggéey lijjanti say say jafe-jafe moo gën a yomb ci loolu waaw moo nekk noonu mu nekk lu am solo xam naa waaw euh, bala nga fàttali adresse bi tamit mooy euh, sangatu gën gi. Hmm, sangatu gën waaw kooku xam naa ne après da ngay ñëw kër ga. ñu wan ñu wan leen ko. nit ñi waaw nit ñi gis sangatu gën gi. Hmm. ndax fi mu toll ku nekk nga koy laaj waaye nag ku ñëwoon kër ga rek. Hmm. pour nga gis ko day xaw a jafe. waaye nag boo dikkee rek incha allahu rabbi dana la sangatu gën gi ci kattanal suñu borom kon daal képp ku ñu soxla na nga ñëw na nga ñu woo. ci 77 218 95 79 suñu numéro whatsapp bi ma ngi doon tigo bi 76 557 10 39. waaw saa boo ñu woowee rek. incha allahu rabbi wala nga dugg ci whatsapp bi rek dinañ la euh, bi boutique bi mi ngi nekk Touba. Touba Xayra 2. wala suñu waaw waaw arrêt garab Baye Diop. Uh-huh, foofu lañ nekk waaw marché Xayra 2 bi rek. moom moo nekk noonu euh, waaw. ñetti ñax yi lañu waaw ñetti ñaq moom mooy comme li ma la ci waxoon rek laa la ci waxaat. Uh-huh. maanaam ñetti ñaq yi. Uh-huh. ñetti ñaq yi maanaam doon loo xam ne lu ma fabriqué la. lu ma fa teg la déedéet ko fa. samay waajur daan fa sangat ñetti njaq yi nag ma ñëw la àndoon nag samay waajur mm-hmm. ñoom ñoo ànd ak man ci ñetti njaq yi mm-hmm. ñetti njaq yi gina am doole mm-hmm. gina am euh, li nga xamante ni tey moom moo di euh, taxaw pour xettali askan bi képp ku fa ñëw daal insha allahu rabbi ak jafe-jafe boo mën di indi bu soobee suñu borom dinañ ci jëflante te insha allahu rabbi bu soobee yàlla jafe-jafe boo fa indi insha allahu rabbi daan ko réglé moo nekk doon ak sa jërëjëf waaw ah.